gaay Mikayel fay daanaka ma ngay bëgg a jar njar ga nag dana bari lool alal joo xam ne moom mii di Porto yaakaar naa ne war nañ koo mën a teg ci taabal ji waaye Barcelone mi ngi koy laaj lu toll ci fukki million d'euros ak juróom loolee nag dinañ ci dikk wala ñu dem ci balaa ñu dem ci li nga xam ne mooy yëgle bi ak diaspora sopp na bi ñu gis ni kon Barcelone ma nga noonu yaakaar naa ni départ ki li nga xam ni moo nekk ki li di euh, Mikayil Ngor Faye di international sénégalais euh, maanaam ma ngay wéy di dem accord nag fukki million ak juróom yi ñu jàppoon ni ci ay euro mënoon na soog vraiment dem mbir ma nag ma ngay gën di yaatu man naa dem ba àgg ci trente euh, millions millions d'euros fii ba euh, soin nga xam ne loolee bu boobaa ab contrat day yaatu bu baax a baax tey góor gi lu muy gën di dem euh, di gën a doon xaalis bu baree bari ci Barcelone waaye nag fi mu toll nii fii mu toll nii temmee bu fekkente ni Porto taxaw na mi ngi waxtaan ak yi mbokkam nag di wërwërloo waaye bu dàkkawre rek gars yi tas match bu ko defee moom mu jóge ca Barcelone ndax Barcelone bee boo mu nekk a bi yenn saa yi mu yëg te mënagul a jur dara kon fi mu toll nii dañ koy ñaanal mu dem ca kaw a kaw moom mi di Mikayil Ngor fay ñu diglu yëgle bi te ñëwaat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 sopp na bi ma nga noonee revue de presse bi ñu gën koo yaatal nag ak classico bi nga xam ne jàpp nañ ko ñoom goney Barcelone yi ak nag ñu bari ni est-ce que dana am wala du am waaye loolu ab laaj la boo xam ni man dama koy samp ci li nga xam ne mooy commentaire waaye yëglikaay bi nag yaakaar naa ni uh, soriwu ca baax a baax waaye nag dalal na kii di Fermin moom goney Barcelone yi waxtaan wa nag yaatu na uh, baneen bi ci des mooy blessure Mbappé bi nga xam ne mi ngi ci coppati yëglikaay bi bu ngeen ko du yoo xam ne bu ci ne am na solo bu baax a baax gars yi maa ngi leen di baalu àq di leen baalu àq ci li nga xam ne mooy tabaski gin jub si yàlla nanu yàlla boole baal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi jiite Sénégal yàlla defal ko sutura ak jàmm gu mën a yore Sénégal premier ministre dina noonu ñu continuer li leen di revue de presse bi loolee entre la woon ñu dem ci marka yëglikaay moom mi nga xam ne maanaam Morata la ñëw teg ci taabal ji daal di koy dalal nag ñu waxtaan waxtaanu yaatu Morata ba mu juddoo ba ni mu toll fii mu toll yëglikaay bi ñëw na ca Madrid nga xam ni mujj fa doxal jaaram ba Atlético Madrid tey ji mu gën a yaatal euro bi nga xam ne ma nga nekk ca Allemagne première bi tam na ko yebbi lu baree bari loo ne ko defee a am lépp euh, euh, euh, na ni nag war naa mën a dellusiwaat ci diir bu yàgg tuuti jafe-jafe mais lépp nag tawfiix ak lay doon ci moom moomee nga xam ne yaakaar naa koy fa bal yaay gaañu ci kanam tuuti yeneen information jërë ngeen jëf